yéegali koor gi ak jàmm comme ni nga ko waxee tey mooy guddik fukkeel gi ak ñeent ci li nga xamante moom moo di weeru koor bi ñu nekk loo si mën a dégg mooy koor gi xaaj na li ñu woor jot a woor bu ñu ko wooraatee inchaa allahu taala benn fan wala ñaar lañ siy teg rek daal dee dugg si li nga xamante moom moo di korité yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala mottali naafila tey bi dañ ne juróom-ñetti ràkk la maanaam huit rakka boo defee ñaari ràkk da ngay sëlmal rakk bu njëkk bu nekk da nga siy jàngal li nga xamante moom moo di benn fatiha boo jàngee fatiha nga teg si suratu an nasr mooy ida jaa nasrullahi wal fath wa rayta an nas yadxuluna fi dinillahi afwaja fa sabbih bi xam hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba nga def ko juróom-ñaari yoon boo paree si ñaareelu ràkk bi nga def si li nga xamante ni moom moo di suratul ixlaas mooy bi ñuy wax saa su nekk qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad boo sëlmalee ba def say naafila yëpp juróom-ñetti ràkk yooyu ba mu jeex nga tëj ko ak chafa ak witre bu fekkente ne man nga ko boo mënee lu ko ëpp itam nga def ko ndax yiw du doy te lépp yiw la boo jeexalee naafila yi nee nañu nga def juróom-ñaar fukki xawqala mooy 70 la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim nga xam ne benn bi rek mën na régler ay problème yu bëree bëree bëree bëri moo tax ñu ne boo ko defee juróom-ñaar fukki yoon suñu borom subhanahu wa taala man na la defal sutura ak xéewal yi ñuy bëgg a wax mooy li nga xamante ne moom moo di sakaraatul mawt di mettiti dee ak tar yi ak tàngoor ba borom bi subhanahu wa taala man na la ko woyofalal yal nañu ko yàlla defal beneen bi mooy nit ku nekk bu génnee àdduna ku ne xam na ne day am ñaari malaaka yoo xam ne ñoo koy fekk si biir bàmmeelam di laaj ay jëfam Nakir mooy la ñuy wax rek naan man rabbuka ak maa kitaabuka maa diinuka man nabiyuka muy ñeenti laaj yoo xamante ni ala kulli xaal doomu aadama bu dugg biir suuf rek malaaka yooyu danañ la ko laaj nee nañ boo defee naafila bi yàlla subhanahu wa taala mën na la yombalal buñ la laajee nga mën a tontu tontu yoo xamante ni leer la beneen bi mooy yowmal qiyaam insha allahu boo ko defee lépp loo xamante ni tiitaange la ak njaaxare la yowmal qiyaam nga xam ne bésub tiitaange la bésub njaaxare yàlla subhanahu wa taala mën na la teggil tiitaange ak njaaxare yowmal qiyaam kon naafila tey bi mu ngi noonu dañ ci góorgóorlu ku ko man na nga ko def ku man lu ko ëpp itam na nga ko def ndax nekk na loo xamante ni lu am solo la nga xam ne idaa jaa nasrullahi baay cheikh saar boobu mooy bi nga ne moo mujjee wàcc si alquranul karim mhm. bokkul ak verset bi mujjee wàcc mhm. am na verset bu mujjee wàcc am na saar bu mujjee wàcc mhm. saar bi mujjee wàcc bii la bi mu wàccee rek la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu bañ ko laajee waxul ibnu abbas lañ laaj mu ne mooy saar bi nga xam ne mooy tàgge sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax euh, yaa oustaz fàttaliwaat leen ni Euh, hashtag bi QG TFM 2019 bu leen fàtte euh, ni euh, mën ngeen seetaan jotaay bi mais en même temps déglu ko en simultané ci King FM 99 point 4 première radio digitale du Sénégal bëccëg bi ñu leen di gunge ak musique yu neex waaye guddi gi itam ñu àndandoo ak yéen ci synchro bi ñuy synchro quartier général di ndokkeel auditeurs yi nga xamante ni foofu la ñu koy jàpp di déglu guddi gi yëpp ba fajar ndax noo ne leen koy proposé mën ngeen réagir biir itam euh, ci euh, compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi euh, déglu ñu wala seet